alhamdulilahi rabbil alamin walxaqibatu lilmuttaqin suma salaatu wasalaam ala sayidina wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellusiwaat suñu waxtaanu koor ñu nekkoon di jàngale benn tomb bu rëy te mu lu ñuy tuddee jëw ñu nekkoon ci di ci waxtaan tey mu nekk suñu ñaareelu numéro ci wàllu jëw yàlla suñu borom dafa protéger nit ki deram yàlla dafa protéger nit ki askanam yàlla dafa bëgg itam ko protéger nit ki li nga xam ne mooy alalam nit ki dafa wara ñoŋal deram waaye ñoŋel askanam ñoŋel li nga xam ne mooy alalam loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi nee na kullu muslimin haramun damuhu wa irduhu wa maaluhu jullit bu nekk samaru mu jullit araam na ci yow deram waroo ko wax lu koy gàllankoor waroo ko def lu koy gàllankoor waroo tuur deretam waroo teg ci daram loo xam ne bu ko déggee du ko neex waaye alalam itam waroo ko jël tamayu la ko mbokk yi su fekkee danga tuumaal nit ki lislaam teg na la ay daan nit ki su fekkee da ngaa jël alalu jàmbur lislaam da laa teg daan ndax gis nga sàcc ci lislaam boo sàccee ñetti dërëm dañoo war a dagg sa loxo kon jël alul jàmbur baaxul waaye wax ci deru jàmbur loo xam ne itam neexul boromam geesu ko def ndax bàkkar lay jural nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man radda irdi aqihi radallahu képp koo xam ne teg nga ci deru jàmbur loo xam ne neexu ko dëppoo lu lislaam bëgg bu keroog yowmal qiyaame yàlla dana jël sa kanam këpp ko ci biir safara jahannama kon tabaarakallaa yan ci yàlla bul musal kon su fekkee danga wax ci deru jàmbur loo xam ne du dëgg wala sa dëgg waa ñi moo koo wax boo toogee moom boo ëllëgee tabaarakallaa yowmal qiyaam yàlla dafay jël sa kanam tabaarakallaa dëpp ko ci li nga xam ne mooy safara jahannama kon mbokk yi fa tabaarakallaa jëw dafa xaraam bu baax a baax a baax waaye itam xam nga lu ci gën a garaaw jëw moo gën a garaaw sa njaalo yonent bi sallallahu alayhi nee na maanaam njaalo ji nga nu bone njaalo ku ko def dañ la war a caw téeméeri wala ñuy jam la ba nga faatu waaye su fekki aji jaw jëw moo gën a garaaw sa njaaloo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iyaakum wal xiiba fa inna al xiiba ashaddu min asina inna rajulan qad yasni wa yatubu fa yatubu llah alayhi wa inna saahibu al xiiba laa yaxfiru llahu taala xatta yaxfiru lahu zaahibahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne iyaakum maa ngi leen di moytandikulu alxiiba jëw ñu ne ko lu ne ci géew jëw ya rasulullah mu ne fa inal xiiba naka jëw ashaddu moo gën a tar mina zina ci njaaloo nee na jëw moo gën a garaaw njaaloo parce que boo njaaloo boo tuubee yàlla mën na la digal waaye boo jëwee boo tuubee yàlla mën na la bañ a digal mu ne inna rajulan qad yasni fa yatuubu fa yatuubu la alayhi wa inna zaahibul xiiba la yaxfirullah xatta yaxfiru zaahibahu kon gis nga jëw tabaarakallaahu moo gën a garaaw li ñuy tuddee njaaloo kon bu ko defee jëw baaxut moo tax yàlla wax ci alquran ne maa yelfasu min qawli ila laday raqib atib kenn ku nekk lépp loo mës a wax yàlla am na ñum ko sas pour ñu bind ko te mooy koo xam ne dara du ko rëcc ak ki nga xam ne du nelaw ci dara te mooy atib a raqib kenn ku ne loo mës a wax loo mës a jëf fi nga ko jëfee yàlla boole na ay malaaka yoo xam ne tabaaraka dara ump leen ñu ngi koy bind di ko bàyyi xel bu keroog yowmal qiyaame ñu teewal ko suñu kanam borom subhaanahu wa taala moo tax yu leen sallallahu sa wa sallam nee na man kaana yuminu billahi wal yawmal aaxiri fal yaqul xayran aw li yasmut képp ko xam ne gëm nga yàlla gëm bés penc na ngay wax lu baax te boo yeggalee nga daal di noppi. waaye na léegi jamono yi tabaarakallaahu dañuy taawee ko rek waaw di taawee ko rek di taawee ko rek di taawee ko rek waaw li ngay wax dara nga ci lu xam waaye tabaaraka yokk ci boo déggee xibaar nga ñëw yokk ci ileeg nga wàññi ko sax waaye da koy yokk tabaaraka la kon jëw mbokk yi dafa xaraam kon nañ ko bàyyi xel bu baax waaye gën naa xaraam nag li nga xam ne mooy chahru ramadan al mubarak su fekkee da ngay woor di jëw sa yool dafay wàññeeku waaw sa yool dafay wàññeeku luñ la nar a fay ci koor gi duñ la fay lu toll noonu te itam tabaarakallaahu lekk mar ak xiif rek mën na laa yóbbee ci koor gi te doo si am yàlla kon yow mi woor fexeel ba wooral sa làmmiñ te moytundi ko jëw yow mi wooro fexeel ba wooral sa làmmiñ moytundi ko fenn yow mi woor fexeel ba wooral sa xol moytundiku njortu loo xam ne du dëgg yow mi woor fexeel itam nga sàmm wanteeg say cër benn bu nekk nga tabaarakala sàmm wante moom ba mu dugg ci loo xam ne ëllëg dana ci jëlee li nga xam ne mooy mbugale suñu borom kon woor daal nekkut bàyyi lekk bàyyi naan waaye dafay nekk loo xam ne da ngay téye say cër yëpp loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne yow xale bu góor bi yow waxambaane bi yow célibataire bi su fekkee bëgg nga mucc say cër mucc nana ne ngay taqoo woor soo ko defee incha allah da nga mucc say cër dana mucc waaye su fekkee na tabaarakallaahu téewoo say wooruloo man nga ba na mucc ndax biir moom bu xasee regg tabaarakallaahu bakkat da koy womat te bakkat na bu womatee nit ki ci àll ba la koy jëmee te mooy lu neex seytaane kon tabaarakallaa ñu gën see bàyyi xel nga xam ne koor gaa ngi bëgg a jeex nañ ci góor góor bu baax tabaarakallaa yal na yàlla dafa ñu si tawfiq dafa ñu ci naja bi xormati nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee ci mbiru koor gi am na ku ci laaj ki nga xam ne nee na dafa woor ba ci biir mënatul jàll woor ba ci biir mënatul jàll ndax mu ne dana daggam déet laaj bi dafa des su fekkee ne maanaam dafa xiif rek ñëpp a xiif li fekkee xiif rek moo tax nga wax yow mi laaj laaj bi moom koor moom ñëpp a xiif moom fekkee mar la itam ñëpp mar waaw du yow kenn képp fekkee xiif rek moo la jàpp jaru ngay dagg ndax ñëpp xiif buy mar yi jaru ngay dagg ndax ñëpp mar kon continuer sa koor gi incha allah rabbi muñ sa xiif gi bàyyi xel say morom ñu ngi muñ xiif gi ak mar gi fa tabarakallah muy benn ñaareel bi mooy su fekkee nag léegi sa bakkan nar na cee des soo naanul dee toll nga état boo xam ne soo naanul mën nga ñàkk sa bakkan lislaam na kon daggal tabarakallah nga naan sauver sa bakkan bu kooru jeexee nga fay benn fan bu ko defee loolu loolu mooy àtteem mbokk mii dafay laaj ci itam dafa nekk benn dafa nekk si dëkk bu tàng ndax muy laaj na mën na bañ a woor bu ñibbisee dal di fay tont bi mooy déedéet xam naa ñu nekk Tamba wala nekk dëkk yi tàng yooyu tabaarakallaahu tontu bi daal mooy déedéet mënoo ñàkk woor mënoo ñàkk woor loolu tappale rek la waaw ah, mënoo ñàkk woor ndax fekk nga fa ay nit di waa dëkk baa ngi woor kay yow koy wooral rek waaw wooral rek waaw boo dee ñi xam ne dee nga rek dee nga ci koor gi waaw tabaaraka la ñuy ñaanal na sa am na mujj gu rafet waaye nit ñi war nga nekk fa di naan say galaas lekk say mbaxal na dafa tàng mun maa war Dakar laa dëkk wala nangam nangam Mbuur laa dëkk moo gën a sedd kon bu loolu ay tappale la waaw loolu tappale la kon boo nekkee Mbuur wala nga nekk Dakar dem Tamba wala nga dem Ziguinchor tàngaay ba nekk fa nga ne man nangam du mën a woor loolu tappale la kon góor góorgóorlu nga woor boo dee ci koor gi nga xam ne ñu la waa ji kat am na mujj gu rafet waaye tàngaay bi tax bu mu ñàkk a woor déedéet sa liggéey itam bu mu tax ba nga ñàkk woor ndax liggéey bokk ci ngante yi maçon yi liggéey nga ne dafa tàng mënu ma koo booleeg woor déedéet lislaam waxu la nga dagg waaw journal yi ngay def na dafa métti tabaarak mënu ma koo booleeg koor déedéet lislaam waxu la loolu kon bàyyi liggéey bi nga daal di continuer sa koor gi. bu weeru koor jeexee sànce bi yaa ko moom yaa fa yóbbu sa bopp loo bëgg de xaalis waaw xaalis nga bëgg dara yóbbalewul woon xaalis kon nag mu ñal xaalis bi topp ndigal suñu borom nga xam ne yàlla mooy joxe waaye nag bul dagg koor gi ngir bañ a woor fa tabarakalaaw loolu lislaam lu ci ànd ak nit ki waaye nag soo yëgee nag yow. leer na la boo continué sa koor gi mën nga loru tabaarakala sa bakkan man naa mën nga siy dee rek kon bu ko defee man nga dagg koor gi su fekkee itam naaj bi dafay sonn dafa lay sonnal ci yow nga xam ne mënoo mënoo supporter li nga xam ne mooy tàngaay bi ak liggéey bi diis bi kon da ngay changer heure bi ngay liggéey lislaam nanga na ko bëccëg gi nga dem te di nelaw soo daggee tabaarakala dem jël sa peel dem liggéey continuer sa sanc bi boo liggéeyee ba fajar jot nga xëdd sangu ñëw tëdd noo noppalu bu ko defee loolu moo gën a daal xel na naa bàyyi liggéey bi euh, naa bàyyi koor gi fa tabaarakallaahu ba koor gi jeex su ma ñibbisee fay ko loolu moom mbokk mi yow mi laaj na euh, lislaam du ko nangu kon bu ko defee yal yàlla dafa ñu tawfiq dafa ñu najaab wa aqiru dahwaana anil hamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah